ñu ngi ci duggee ci bismillahi rahmaani ñu jeexalee ko alhamdulilahi rabbil alamin te gépp jaamu yàlla guñ ci jaamu yàlla nangul ñu ko desiwaan nañu yéen tey ci jataay boobu baaxoon nañ koo amal jataay boobu jataay bu ñu fàttalante la lu jëm ci yenn ci ay naafil la yoo xam ne dañ koy jukkee ci téere Xuratul Ayni bu Sëriñ Suhaybu bu Mbàkke tey nag mbokk yi dëppoo guddi fukkeel ak juróom-ñett gi ku ci julli fukki rakka raka bu ci ne fatiha ak sabisma ak qul yaa ayyuhal kaafiruun ak qul huwallahu ahad lu ci ne benn yoon mel na ne ku moom àdduna sépp ak li ci biiram ba noppi dundale ko ci yoon yàlla te araf bu ci ne des na ko ci tabaxal dëkk bu rëy ci àjjana mel na ne ku jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at yoo xam ne da ko yendoo woor fanaanee ko julli mel na ne it ku jàng alxuraanul karim téeméer yoon aj màkka téeméer yoon umra téeméer yoon te des na ko ci bindal tuyaaba joo xam ne yàlla rekk moo xam ne mu toll te balaa génn àdduna dana gis këram ca àjjana te bu bis penc baa du gis lu muy ragal wala lu koy jàquloo ba ba muy tàbbi àjjana kon guddi fukkeel gi ak juróom-ñett mi ngi noonu ku ci julli fukki raaka raaka bu ci nekk faatiha benn yoon ak suuratul aale muy sabbixi isma rabbikal aale benn yoon ak qul yaa ayyuhal kaafiruun benn yoon ak qul huwallaahu ahad benn yoon mel na ne ku moom àdduna sépp ak li ci biiram ba noppi dundale ko ci yoon yàlla mooy moom àdduna ba noppi joxaat ko suñu borom subhaanahu wa taala te araf bu ci nekk ci njàng moom mu doon jàng des na ko ci tabaxal dëkk bu rëy ci àjjana mel na ne it ku jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at yoo xam ne da ko yendoo woor fanaane ko julli mel na ni it ku jàng alxuraanu karim téeméer yoon aj màkka téeméer yoon umra téeméer yoon te des na ko ci bindal tuyaaba joo xam ne ci naaf googu yàlla rekk moo xam ni mu toll te balaa génn àdduna dana gis këram ci àjjana te bis penc ba itam du gis lu muy tiit wala lu koy jàqloo ba ba muy tàbbi àjjana kon mbokk yi lii mooy naaf gi ñu indi tey ci guddi fukkeel gi ak juróom-ñett ñu fàttali naaf gi fukki rakka lay doon rakka bu ci nekk faatiha lañ ciy jàng benn yoon ak sabbi isma rabbikal a'la benn yoon ak qul yaa ayyuhal kaafiruun benn yoon qul huwallaahu ahad benn yoon ku ko defee nii ñu ko waxe yiw yooyu ñu wax léegi ci ginnaaw naaf gi dana daje ci yow te muy moom àdduna sépp ak li ci biir ba noppi joxaat ko suñu borom subhaanahu wa taala araf ci nekk itam ci njàng moomu ñu tabaxal ko dëkk bu rëy rëy rëy ci àjjana mel na itam ku jaam yàlla juróom-ñaar fukki at yoo xam ne da ko yendoo woor fanaane koo julli mel ni itam ku jàng alxuraan karim téeméer yoon aj màkka téeméeri yoon umra téeméeri yoon des na ko ci joo xam ne yàlla rek moo xam ne mu te balaa génn àdduna ko këram àjjana wóor am na ci kër kër ci biir àjjana te bu yomal xiyaamee du gis lu mu fay ragal mbaa xam ne daf koy jàqaloo ba ni muy tàbbi àjjana yàlla nañu yàlla may dégg ak topp te ñu leen di jox dig daje suba ak jàmm ci waxtu wi di ñaan yàlla mu nangul ñu suñuy jaamu yàlla te fulandul ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.